jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak teraanga ak poche def dara sëñ Mbàkke démb bi ma yëkkati jataay bi doon tàmbali lislaam ak ndaw ñi wala ndaw ñeek lislaam wala lislaam akuk ndawe wala ak ndawe ak lislaam dama doon tàmbali wane jàngalekat boobu ñu wax annabiyul Mustafa te koo wax ci pénc mi nee na dafa bëgga a ji fa mu tëdd ba nit ñi aji màkk sax duñu wax aji màkk waaye dañuy wax ziyaare ji rasulullahi waaye dañuy bañ ñun ñëpp man ak yéen ak professeur jibi nit dem fa ne ko asalaamualeykum yaa rasulullah mu du la ndax daana ko def daana ko def de def na ko jënn jigéen ñuy wax asma bint abi bakar saddiq li muy xaritoo xaritoo ak baayam nuyu na ko fayu ko ndax comportement am nuyu na ko fayu ko waaw ndax ni mu soloo woon waaw nuyu na ko fayu ko ndax nam teeye woon ca kër ga waaw nit ñëw na it nit njaay nit nit ñi nuyu ko fayu ko waaw yàgg na koo def léegi nag nekk ci réew mi bëgg ko lool waaye li wax ci kër yi wax ko ci gone yi wax ko ci ndaw ñi wax ko ci jigéen ñi doo ci doxal lenn ah doo ci doxal lenn te kat alxuraan daa waxoon ne maa kaana lahumul xiyara waaw jullit bu góor ak bu jigéen bu yàlla tëralee yonent bi jottali sañatuñ ne waaw waaye exécuté rek loo am jël te lu baax ngay am yonent boobu moo ne woon ixtanim xamsan xabla xams yaa ngi juróom jëfandikoo leen balaa juróom a ñëw waaye mu boole ca nag shababak shababaka bi ngay nekk ndaw fexeel ba bala ngaa màggat nga def fi dara ndax bi ngay nekk ndaw lu ne mën nga ko bi ngay nekk ndaw luñ la jàngal nga mokkal ko luñ la wan nga xam ko waaw waaw te direct moo ci baaxut ak fas yéene liggéeye carte xeet wu la gën a bari carte gën laa mën a tëdd gën laa mën a nelaw te xeet wu la dàqa nelaw sa morom romb la dafa amoon benn jenn jàmbaar ju nekkoon ca Tunisie waaw tubaab yi ñëw jàpp ko yeew ko loxo yeeg tànk yi ceena ko muy dem waaw muy wax xeetam wi nag naan leen alan hët wa sir fii sabilil xayaa fa man naama lam tantasiruhul xayaa waaw kooku moo ko doon wax ndeysaan ñu yeew ko muy dem waaw bu la ko ñoom Moustapha si bii nekk canal 4 fédération bu la ko mësaan di jàngal balaa noppi rek nga seen gonu jigéen ñuy jooy maa la ko wax alan had wasir fii sabilil xayaa waaw fa man naa ma lam tantasiruhul xayaa nee na nit du nelaw mukk montoram di xaar bu yeewa mu continuer musul kuy nelaw sa montor di xaar waaw six heures nga tëdd di nelaw sa montor di la xaar di la xaar ba nga yeewu mu continuer du ma am mukk mukk waxtaan wi ñuy waxtaan fi ne ku fi fëkk bët boo yeewoo mën nga am yeewu fekk mu jeex maa la ko wax de kon nag nelaw yi waaye nelaw xeer woo bëgg mu nelaw rek indi fa ak kart ak kumpo ñëpp nelaw nelaw kuy waaxu ci mbedd mi nag waaw nelaw yi suñ sàmbay daan jàngale waaw deegu weex géeg deegu ñuul géeg deegu xonq gi <laughs> seetëtët rahmatullahi ali mbokk yi eh, ndawe ci lislaam mooy loolu ma wax mooy quinze ans ba cinquante cinq waaw quinze ans ba cinquante cinq loolu la moo di ndawee ñi nga xam ne amaguñu quinze ans nañ leen waajal ba bu ñu amee quinze ans waajaay wa gën a yomb ñi am quinze ans jëm cinquante cinq ñuy orienté leen ci métier waaye ci moo xam ne bu dee daara bu gën a liggéeyee ñu tëj sëriñu daara boo génnee daara comme neex nga liggéeyloo xale bu la neex moom ci tamit euh, loolu ci wàllu justice sociale ci wàllu maandute ci wàllu démocratie jar naa bàyyi xel bu baax a baax gone dañ koy jàngal njàngum gone di ko liggéeyloo liggéeyub gone waaye gone munta ñàkk liggéey gone dañ koy liggéeyloo liggéeyub gone di ko njàngal njàngum gone waaye gone munta ñàkk liggéey léeg-léeg nga taal télé bi seen gone guy publicité maa ko seen gone guy publicité maa ko seen ca télé ba loolu liggéey la di loolu liggéey la maa seen gone guy théâtre loolu liggéey la waaw maa seen gone guy dóor pooj waaw waaw liggéey bu rëy rëy sax la gone guy dóor di dóor pooj mag ñu bari ñëw dagg bii di ko seetaan si nga xam ne la am ca xaalis booba kenn xam nu toll waaw kon ndaw li bi muy tollu foofu dañ koy orienté dañ koy orienté jàngal ko njàngum gone gis nga ba demee ci syndicaliste yi yàlla na yàlla sàmm leen xam nañu ne dafa am étape boo xam ne bi koy jàng ci ngay toll ñoom ñu suturee waaw tabarkalla yàlla ko yàlla yokku xam nañu njàngum ndaw njàngum diggu dóomu ak njàngum mag loolu xam nañ ko étape yooyu nit di jaar ci lu am njàng kon ndaw tam étape yooyu def ci jaar mu des nag lenn lu oustaz Ahmed Dame Ndiaye di wax lu am solo yàlla na ko yàlla sàmm nee na jafeñ-jafeñ yi nga xam ne juddoowul ci lislaam buñ ko ko bëggee fajloo sonal ko jafeñ-jafeñ yi juddoowul ci lislaam ba pare ñu bëgg koo fajloo lislaam bërki démb njiit la la ca Chine ba mu jaaxlee ba muy woote bawul kenn waaye ndengañ yàgg yu métti yañ fay teg lislaam danaa ci ñëw buñ agsee ci alhijratu ilal xabasha ndengeñ yu métti yooyu mën naa tax sunu borom merim pénc waaw a alam taraw annahum yuftanuuna fi kulli aamin marra aw marratayn yàlla nee na na waa pénc mi seetlu at mu jot ma teg leen dara mbaa ma teg leen ñaari dara waaw si oustaz Samet Daam Njaay lu ko yàlla yokk wér mu ne kon yi nit dem ba mu yàgg mu judd nga ñëw ni lislaam ay ca lislaam ne lu ma ci man boo jaaroon fi nga fi fi nga fi fi jaar lii du sot du du du du du sotti maanaam du la dal te àdduna am na fi jafe-jafe yu bari dañ du laal laaj lislaam xalaatam loolu caa dugg déedéet léeg-léeg dañuy woo lislaam laaj ko ba nit ñi dégg lam wax ñu jëfe lañ jëfe ñoom waaw xeetu fexe ba doom du juddu fexe ba soreelem njur yooyu duñ ci laaj lislaam lu ciy xalaatam boo demee nag ba am problème mu koor gi ñëw na mënoo woor ndax say deret mënoo wor ndax si julli mënoo julli ndax say deret mënoo jege sa boroom kër jël sag ay ndax say deret nga daan ñoo ne oustaz man day fan yii yépp damay gis baax léegi nag lu ci lislaam wax lu ci lislaam wax <laughs> mooy demal ca ñala doon def loolu ñu indil la fiq bu ko bu ko régler loolu rek la te li muy dal liste bi su ma leen ko liiraloon fii ngeen ne déedéet kay lii lépp mi ngi ci may maa la ko wax lii lépp mi ngi ci kon dem ca barab ba dara dal la fa nga ñëw ne lislaam ay mu ne laa lu ma ci man lu ma ci man loolu moo tax saa na la lislaam ak ndaw ñi lislaam nekku fi moom tam jafeñ-jafeñ yépp mu ne dama koy faj xam nga lu xew mooy bépp jafeñ-jafeñ bu juddoo ci biiram indi na lu ko faj moom lislaam waaw waaye alxululul mustawrada googu mbokk ma doon bind waaw sayid xutbu al xulul al mustawrada waaw maanaam jéem a say problème biir réew ci solution yi bitim réew doo dem doo dem jafe-jafe ñi réew waa réew maa koy réglé gis nga fi ne Mali gi li jege-jege loolu xaritoo xaritoog ñun am na loo xam ne mënuñu koo defal gan bi gii lim nuy jege jege lim mu xaritoo xaritoog ñun am na yoo xam ne mënuñu ko defal ma la ko tey Mauritanie noonu lay mel waaw Guinée noonu lay mel Guinée Bissau noonu lay mel suñu dëkkandoo yi waaw bitim réew lim man xëy na mooy ñëw maylab xaalis may xaalis de mën na ko waaw tabaxal lay bâtiment mën na ko waaye am na yoo xam ne. ci ay muskila yu juddoo ci suñu biir noonu rek ko ko mën a dindi gis nga dëkk bii nga xam ne <laughs> penc mi jóg nañ ne dañ koy setal wala leen góor na sedde na sedde te itam di ko def par benn yoon ci weer baax na de baax na de waaye fexe ba équipe bi koy taxawee ñoom loolu nekk lu leen di jàppale bu ñoppee puus leen ñu continuer bu weer wi deewee ñu def ko baax na de barki démb damaa seetaan ci tele bi <laughs> waa ndar di ko def waa ndar di ko def ma woo Lamine Thiam ne ko yow séenu ma la mu këpp waaw ma ne ko Lamine Thiam yow séenu ma la bu nu wootee ne dañoo bëgg ndar set séenu ma la séenu ma la ustaas diw <laughs> séenu ma la ustaas diw séenu ma imaam diw waaw séenu ma politicien diw mu ne ah ma ne ko yéen fu ngeen nekk mu ne ma dama fi ñu nekk. caméra bi dafee ñëwut man ne ko ah nay leer de man de si <laughs> séenu ma la waaye gis nga ceet tet jafeñ-jafeñ yi salte yi réew waa réew rekk ko mën a dindi mooy fexe ba culture set nekk ci nun fexe ba culture setal nekk ci nun waaw kon léegi tey dëkk bi set fu nu setal ba noppi it ñu fexe ba kenn du ñoo bëgg koo taqalaat waaw setal baax na de waaw moom Sëñ ci njaareem dafa mas woo mag ña ne leen feede na mel ne gënut dem leen wut ay jumtukaay ngeen ratt ko ba mu set ngeen gasum pax dugal ci lu la suuf si ngeen gasee pax mi ne ngeen maasale ko ci kawam loolu la keroog mag ñi dem def ko tabarkalla <laughs> waaw mag ñi dem def ko waaw mag ñi dem def ko daal gas pax ma def ca mbalit ma suul ko suuf si rafet sax ñu tuur ko ca kaw benn jànq jóge fi rek ba mag ñee raxasu rek mu ñëw xëpp ca mbalit <laughs> benn janq fa jóge rek bi mag ñi defaree bay raxasu fañ doon seetal mu jànq ba ne fa paanubal ga këpp mag ñu jàpp ko seete sonal ko ñu wax ko sëñ bi <laughs> mu ne leen yéen li ngeen def warutoon def li ngeen def ñu ne ko li xew mu ne dangeen ngeen a ndeysaan mag ñëpp toog mooy leen da dangeen a da ngeen ñu ne ah mu ne dañ koo taxaloon ma defarloo leen ko ba ba ba gërëm leen ci bu taqatoon du ngeen ko defar bu ngeen ko defutoon du ngeen am ngërëm lii ñu ne ko waaw mu ne kon kii koy tàmbalee taqalaat daf leen a bëgg wutalaat ngërëm mu ne waaye fi ne set setal gii nu jël nii yàlla yàlla bu mu dakk waaye diggante première samdi deuxième troisième ba baa weer bi di jeex bés bu set ñun ñëpp nañ am culture setal man nag maak maak Ablaye Makhtar Diop li nu gën a déranger ci Dakar <laughs> yàlla na ko yàlla yokk wér maak Ablaye Makhtar Diop monsieur le ministre li nu gën a déranger ci Dakar mooy xënti oto yi nga xam ne dootuñu dawati man maa moom looloo ñooy gën a déranger oto yi nga xam ne dootuñu dawati ñu gaare leen fi ñu leen gaare ñu lonki mbubbi nit ñi di yàq circulation bi man maa moom loolu moo ñu gën a déranger nag waaw tabarkalla <laughs> waaye daal mbokk yi ma waxaat ko lislaam jafeñ jafeñ yay juddoo ca kër jàmbur ya parewul pour faj ko bépp jafeñ-jafeñ bu juddoo ci biir këram nag pare na pour faj ko loolu mooy tekki laa ilaha ak illallah laa loolu lay tekki waaw professeur bi nag mooy muhammadun rasulullah allahu akbar mbokk yi lislaam it xamut jaaxle ñëw mu faj la nga ñibbi déedéet moo ko hôpital ñooyam dalay bu gisee na sa feebar bi jar na jar na euh, entré la dafa lay entré moom lislaam mook daara ñooyam internet ak jàng dee wàcc du benn boo demee fële ca bàngoo ndeysaan soldaar yu ndaw yooyu di fa internet daanaa fa dem di fa fekki sama benn xarit bu ñuy wax buñ ci waxtaanee mu ni ma ah ndekki léegi ci suñ daar ji mën na ko lu ko raw waaw interna loolu la tax mu am njëriñ waaw internat loolu la tax mu am njëriñ lislaam dafa gis ne ki feebar ki feebar bu bëgg faju bu yëg ne daa feebar bu ñëwee ci lislaam bu ko lislaam fajee daf koy interne daf koy internet luy daf koy internet mooy dootul ñibbi ca lam nekkoon waaw day toog ci lislaam bu dee jigéen mu muur ay cëram sol lu fàttatiyaaju te jot waaw ñuy xëy di ko jox garabam <laughs> ñuy xëy di ko jox garabam loolu mooy formation yi muy xëy ñu koy jox garabam mu di ko jox garabam ba mu xëy raw raabi adawiya mbaa mu mel ni moom allahu akbar fi ne waxtaani fajar yi soxna Kumba Jóob mu la ca caar yu asir daf koy def médicament waaw muy garab goo xam ne gi su jëlee dafa bu xëyee day jël doos <laughs> allahu akbar waaw nee na léeg-léeg ma wax ba mu yàgg rek mun na ci néeg ba naan hii hii ba waa kër gi ñëw ne ko lu xew lay ndeysaan waaye wax na dëgg ma waxati ko nun ñii di njëkk xëy 6 heures 6 heures 30 wala 5 heures 30 ba 6 heures 25 maag suñu mbàkke informé wuñu dañuy jéem a formé bu nu noppee nag bu ñoom isa ñëweeg ñoom Maodo Faye ak Malick Ndiaye ñoom informé leen waaw defe naa noonu la professeur jibi kon lislaam bu amee ndaw lu ñëw ci moom da koy faj mais daf koy interner saa bu xëy jox ko garabam ba mu xëy wér allahu akbar ba mu xëy wér jigéen mu koy xëy di joxe garabam di xëy di ko joxe garabam ba mu xëy wér fi amoon <laughs> xam na du ma wax turam waaye gone gu jigéen gu jóge woon ca wetu Casamance waaw wetu Casamance ñëw ñëw ci daara ji waaw ñëw ci daara ji su may dem fenn ne ko yéegal man moom Assane Diop ak Saliwu Jaw ñu ngi may dégg ma ne ko yow yéegal waaw la bu nu yéegee man ma koy defal formation ci yi ma xam ni su dañee ci moom tabarkalla ca yooya ca yooya ba bu rawul raabi adawi mel ni moom mi ngi may dégg waaw bi mu wéree bi mu tanee wala bi mu wéree <laughs> ba jox ko jenn daara ne ko léegi mën ngaa toog fii ndox wér nga ngeen baal ma ci misaal mi waaye damay damay jéem a jàngale jéem a misaal lislaam ak ndaw ñi ndaw lu dem ba am problème te problème boobu juddowul ci biir lislaam boo ñëwee danga nga koy sonal rek waaw mën na laa def na ba nga tane <laughs> dégg nga ndaw li nga xam ne li ko dal ci biir lislaam la ko def la ko dale du am nga mu ñaari fan ku nangu it mu bëgg mu faj la dangay nangu mu interne la waaw moom lislaam saa boo xëyee mu jox la garab waaw mu ngoog mbokk yi ndaw ñi ci pénc mi ndaw li ndaw ñi ci pénc mi yan ñooy seen nouvelle tâche su ma doon réunion ndaw ñi te nekkul réunion arabisan <laughs> ngeen baal mu yéen arabisan yi su ma doon réunion ndaw ñi te nekkul réunion arabisan mooy dama leen di defal information waaw su ma ci noppee jox leen ay tâche comme tey la réunion bi buñ dellusiwaatee nag bu ma leen joxee information damay contrôler tâche yu mag yàgg yi waaw daal leen di jox ay nouvelle tâche su fekkee nu leen koy waxee professeur réunion ba tas waaw bu dul réunion arabe du jël trente minutes bu dee bu arabisant nag ñaari waxtu lu tax mu jeex ndax ku jël kàddu gi da ngay ngeen baal mu yéen arabisant yi <laughs> ci laa bokk nag <laughs> ndax nous sommes des arabisants wala nous sommes des arabisants waaw <laughs> c'est tout xaw ma loolu fu mu nu toppee rek waaye ndaw ñi mbokk yi laa bëgg a defal réunion subhaanahu wa taala ba dem ci sóoratu al baqara ba dem suuratul al baqara waaw sama bàjjan meer juuf mu nga ca baqara mu ne ay àgg na baqara waaye mu ree ba sonu ndeysaan waaw meer Diouf ma nga ca daar jaal imran léegi ma nga baqara meer bu àggu baqara ah maa ko wax <laughs> dégg naa dañ ko ci naan ko maam àgg nga baqara mu ne waaw waaye ba demee ci al baqara sunu borom dafa woote woon ab réunion réunion ba mooy inni jaailun fil ardi xalifa loolu mooy doon réunion bi dem d'information waaye keroog lañ joxoon suñ maam aadama ay tâche bu nu yàlla yóbboo ndar yàlla ñu fa àgg ak jàmm mooy sunu tem ba ca conférence ba incha allah Lamine Thiam mooy jox ko ay tâche kon maa ngi réunion maag ndaw ñi gone yu góor yi toll ci quinze ans te amaguñ cinquante cinq gone yu jigéen ñi toll ji góor jigéen ñi ak góor ñi laa bëgg a wax ñi toll ci quinze ans te amaguñ cinquante cinq réunion bii maag ñoom la mag mu ko ci dégg te mañ leen koo jottali <laughs> mu jottali leen ko waaw am na ay sëriñ yu fi nekk nag yu mën a jottali waaw ñoom YouTube waaw ay sëriñ lañu <laughs> ñoom Ali Imran TV waaw ñoom ñoom ak ñoom Badara Ndaanaan ak gaa yooyu macha allah la waa a waxoon oustaz ba lu tax nga may peraat di enregistré yi may def di ko jaay mu ne ko li la waxloo moom moo ma loo mu jeex takk <laughs> li la waxloo loo moo ma loo kon ndaw ñi wocc nañu réunion maak ñoom waaw maa dirigé réunion bi. du ma nag amir mi duma secretaire secrétaire général bi waaye daal réunion la bëgg def ak ndaw ñi waaw ndaw ñëpp a ngi toog nag yor seen bindukaay ñenn ñu ordinateur lañ yor ñenn ñu yor téléphone waaw bàyyi mbay ak iddi <laughs> soxna Njinde sax ci réunion bi la bokk ndax defe naa ne amagul soixante amagul cinquante cinq ans soixante mbokk yi <laughs> bu subaa mën dundee ñun ñëpp bu six heures jotee rek ngeen jàpp ko fii ndax réunion bi tàmbaleegut gars yi agsi nañ nag ba toog macha allah présente naa leen eh, tubarkalla bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen war ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 628 98 98 ngeen bës 2 ci seen jotaay bi am leen di di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10 heures ngeen jëf ci ànd bi Sud FM seen rajo.